ma xale la dafa nekk ci yoon <laughs> sa waay daw daw bi ñaari at ak ñetti at yu métti yi yëpp xam na li koy xaar de ama yabu ma si yab boobu hmm. barki Serigne Touba Mbacke moom maa moo ngi wax ak man mi ngi may seen ama yabu ma mais est-ce na xeexam Modou Lo bañ day xeex day yow ngay wax de Malick Niang kan moo ko dàq xeex ci làmb dina ko ama da ko fa fekk tafaatin kan moo ko dàq xeex ci làmb ji ak ay directam ama ba ko fekkee nu ko def daa dafa mel ni du ñu xalaat quoi ndaanaan la de déglu ma la mu loon ndaanaan ndam ndaanaan ndam munul nekk ndaanaan ci kanamu ama ndax ama xale buy dem la xale bu nekk ci yoon la sa waay sarax ndongo ba ama tëbbam dooleem hmm. ndaw bu nekk ci yoon entraîné def nder sama baay bu doon taxaw si kanam damay ñëw kott ko ne ko papam ne maa mën a jaaral nii nga bu kër ga fii neexul lu leer laa lay wax. mais sëñ Amath xam nañ fi neex ak fi naqari de. sëñ Amath Cissé fan yii kàddu yi jëmee ko ci wàllu mbokku mu ngi ci wàllu dañuy gis toog boo xamante ne nii tekk ñu dara ñu may la bëri ba nga ñemee taxaw di wax yéen nii ay doomu jullit lañ. man kooku du ma ko déglu sax su ma ko gisee dama koy faxasteel parce que man ci ci lislaam laa judd dama judd fekk suma papa ak sama yaay julli ñu tàggat ma ci julli li may gis nii barki Serigne Touba boo ubbee sama sac sama jàlla day kon su ma gisee kuy am dara lu muy karak karikatire ci l'islam wala dara lu muy teg ci kaw l'islam kooku du ma ko def référence du ma ko xool du ma déglu ay waxam parce que ñun ay jullit lañ ci julli lañ ñu def te bañ doy nii ñu doy te chaque jour dañuy julli bi ñaan yàlla suñu borom bu ñuy may kon benn benn nit wante mën a ñëw mën a sawaay di influence sénégalais wala ñuy cënc maamu sénégalais di leen yóbbu ci ay yeneen niveau naay suñ jekkul ma métti la nag affaire ma métti la ñun Sénégal jàmm rek lañ xam dialogue musulman chrétien dem lante dëkk mais le yooyu yëpp amul problème fekkeewu ma mais mos naa toog ak sama maam mu weex ci Serigne Fallou ma musulman bu gaañ sax boo ñëwee mu ne lañ ko denc Touba loolu yaakaar moo ko mën ak généraliser njaboote ñëpp li nga sàmm warul seexlu génn waaw loolu booy jiitee yàlla suñu borom teg la fi nga jiite mbooloo xoolal nit ci ñëpp di daw wala ñu ci gën a salte dëgg nga jéem leen a sang defar leen ngir ñu mën a méngoo ñu set la dëgg la yee benn sant maa ngi jégaluwaat nag si kàddu yi xam nga di jégaluwaat Sénégal xam ne waaw fukk jeunesse moo ñu topp ñun ay ndaw lañ parce que ndaw buy wax xolam lay waxee parce que suñu deret mooy càng mm-hmm. instant bi sax mën na sa waaye lamb dañ ko xamante damaa namm bëre doomu yaay barki Serigne Bamba lamb rek laa namm <laughs> yow tamit ñu wax ak gars ñu jël ma ma bëre. waaw da ngay bëre léegi mënu maa toog ci ay victoire jëlal lii. xam nga si dara bëri ndaw yu te yëpp maa leen daan. mais gars yi mbër buy bëree di daanu lu ñuy bëgg di bëreel. wax nga dëgg de ay ñoom met met la rouge booy espi yëpp la jër rajo ko dóor ci suuf. daawale. dëgg la de. yow fekkee nga. waaw fekkee naa ay père bekaay fekk ñoom sax ay paa lañ nañ nañ ñu abal Modou Mbaye ñëw ngeen ñëw. dëgg la de ñoom bu ñu xamul yéen xam ngeen booy fi te yëpp daan naa leen. dama gars jël ma bëre waay xool ma ñu ma mel instant bi sama yaram mooy tàng barke Serigne Touba Adja Samara Adja Samara da jël waay sama yaram dafa tàng dama na mu bëre waaw mu ma daan booy dëgër ba bi bëri dama daw pourquoi man xale laa ci yoon laa ne gën a yàgg gën a mét da ngay may xale chance ba tey wala foo ma fekk damay yokk doole fanaanoog sama mère Samara boo yi yëg da nga leen di jël wala da ngay jël fii wala déglu ma la waaw ci ko lay gobelu suuf lay gobelu moom laa la moo tax ma laaj ndaw ñi jeexal naa leen nit munoo lekk ndab li ba koo yii ba set non non desalal xar yi ñamu xar na ma punkali may chance boo bëgg waxal fii la lépp di bu ñu ma ko joxee ma jël am na combat ah euh, euh, booy bu njool bi nekk fii ñu naan ay mooy meilleur lutteur nu mu tuddati. Diop 2 Diop 2. bu ñëwee ñu bëri. <laughs> Liss Ndiago bu ñëwee am na combat. ñooñu ku ci pare na ñëw. maa la ko wax tal ku ci bëgg na ñëw. talfa géwër bi. barki Serigne Fallou loo lay daan ku ma ci jël dama lay daan. ñagas de talfa day géem de déglu ma la sa waay man xool man yow xam nga ne man géem ci man la fekk baax. Mbaye Diop a safara ngay waxal. man sama at mi yëpp dama koo géer yow gis nga lamb yi gën a métti. Mbaye Diop ci sa maa koy bëree. Mbaye Diop gars nee na yaa booy Dakar wala yaa ñagas loo ci wax xoola man nag mbër bu kenn xamul du ma la may loxo de mbër bu nekk ca kàmb gu jéemal teg esel yéeg man damaa ñëw xeex sama yoon xal ken xalalu ma damaa ñëw xool booy fi ñëpp bàyyi booy wusul ab defet maa leen dox defet dama gaa yi ma bëre barke Serigne Touba instant bi gisoo ma sama man damay wax sax di ñàkk ma ko joxee ma jël duru simple yi barki leeru al sooy déggoo lu ma la bu ar pied droit laay bëree gauche laa koy tegal barki Serigne Touba ay uppercut laa koy dóor ba mu wadd barki Serigne Touba Mbacke dama koy dóor ba mu dee ca làmb ji sama eh. xale lay waxal de sama yaram moo tàng man barki Serigne Ba ma dama jël ma bëre waay barki Serigne Touba eh. gaay jël ma bëre dama gaay jël ma bëre day gën a métti gën a yokk doole gën a yokk maas eh, gaynde mer la folaanoo ki may dajalaat arène nationale laa yër mooy dara am problème jaajëf. ah si. daan naa ko yëpp daa war a ma ci